kenn du la nax di nga toll moment bo xamantene di nga wéet di te kenn du la nax muy kat muy kat yaram da koy noppal wax deug yaram yaram des koy noppal diw neexna lol nak diw neexna lol waye da nga wara nopal toll ci moment bo xamantene da nga wara sa yaram da nga wara toll moment bo xamantene ne dangay sirlay ñi nga en promo ba pare sirlay wa sirlay promo la 3000 la bébé Faa ana siir ay waaye kenn forul démb benn jaaro man sama jaaro est-ce duma ci def vidéo ku ko for jox ma ko nag jaaro bi de xam naa ma ciy def damay wax entour bi ma jaar kaas ba ak maris dem ba maris di lekk acake sama jaaro or bu bu ma jënd tabaski bi bu seer benn jaaro bi wat daal sarax la saraxu cat ak laam bi saraxu tabaski bi la <laughs> tapote leen live bi. ma chérie surlait yëpp am na yëpp a baax. surlait yi moom yëpp a baax wax dëgg fa yàlla surlait yi moom. surlait yi moom yëpp a baax waaye benn du bii bii bii man dama koy garanti gis nga ñaari ma jaay la ko xeesoo man ñëwal ba ci sama place. bees bee moomoo temps damay làkk français. waaw waaw. the best bee moomoo. <laughs>